Euh, Salam alaikum, je suis le conseiller régional du programme NECAL, euh, en charge des régions de Saint-Louis lougue et Matam Je suis dans la commune de Ngourane dans le cadre du programme programme programme d'appui au renforcement du système d'information de l'état civil euh, qui est mis en œuvre par la direction de l'état civil donc en collaboration avec Civipol et Enabel. Le projet a trois euh, objectifs principaux. Le premier, c'est le pilotage stratégique de l'état civil. Le deuxième résultat, c'est l'accès à l'état civil pour la population, un accès amélioré. Le troisième, c'est la mise en place d'un fichier national biométrique centralisé. Donc, Gouran fait partie des 32 communes euh, pilotes qui doivent abriter un centre moderne d'état civil qui sera construit et entièrement équipé par Nabel. Donc euh, c'est dans ce cadre que nous sommes venus faire euh, une réunion d'information et de partage et mettre aussi en place un comité de coordination des actes d'état civil. C'est une occasion de remercier M. le maire et toute l'équipe municipale. Donc, euh, nous avons trouvé des personnes très attentives et très attentionnées et surtout un maire qui est très engagé donc, euh, pour le développement de sa, commune. Et on a tenu une réunion avec euh, l'équipe municipale et l'ensemble des acteurs de développement de la commune. Donc la réunion a été très fructueuse. Euh, on, a, on, a, noté aussi des participations de qualité et surtout on a noté l'engagement de l'équipe municipale à la tête de laquelle le maire qui est très, très engagé et très motivé pour que Ngouran soit une commune phare dans la modernisation de l'état civil. Donc euh, voilà, c'était la raison de notre, déplacement en Gouran. Et une fois encore, nous remercions toute la population gourane. Nous avons vu l'implication de toutes les couches sociales, que, ce soit au niveau des sites de santé, que ce soit l'école, que ce soit les chefs de village, des quartiers, de quartier, que ce soit les imams. Tout le monde, nous avons vu, toute la population s'est mobilisée derrière le maire. Donc, euh, maire, nous vous félicitons donc euh, pour avoir euh, mobilisé toute la population derrière vous pour la réussite euh, de ce programme de modernisation de l'état civil merci programme programme programme civil Sénégal civil Euh, yeesal bi nag c'est dans toutes les communes te xam nañu Sénégal am na juróom téeméer ak juróom fukk ak ñaar communes euh, ñu tànn si nag fanweer ak ñaar commune war doon ay communes pilotes ci commune yi nag dañ si war tabax ay centres d'état civil yu yees yu mucc ayib ñu tànn si nag nguraan tànn si nguraan bi nag c'est vrai que am na sens mais am na tamit farlu maire bi gis nañ maire lu mu farloo di ñuy woo à chaque fois di ñu nimmeeku moo taxit ñu ne ñu commencé par ñu nguraan ñu def ko mu doon phase test phase test boo xam ne bu réussir te njort nañ dañuy réussir ñu mën ko dupliquer dans tout l'étendue du territoire national bi fi ñëw nag vraiment fekk nañ fi benn équipe engagé que ça soit mu équipe municipale bi muy population bi mun naa si ñum lu bëri xam naa ni mun naa si ñum les les la santé mu ñu ngi fi woon gis nañ fi waa santé gis nañ fi kilifa diini gis nañ fi kilifa aada yi gis nañ fi l'école gis nañ fi parents d'élèves yi gis nañ fi les chefs village chef délégué quartier ñoom ñëpp nañ gis nañu ñu boot seen ginnaaw maire pour la réussite du projet léegi nag ñu tax ñu remercier maire ci engagement am ci disponibilité am ba pare di ko féliciter tamit ci mobilisation bu mun def ba njaboot bi yëpp mun a boot ci ginnaawam pour projet mun réussir loolu moo nekkoon suñu tànk nag dañ koy projet bi dañ koy tabaxal benn centre d'état civil bu mucc ayib moom moo ñu fi indi ba pare ñu mettal fi am place benn comité boo xam ne ñoom ñoo war a waxtaanee problème état civil yëpp ci commune bi def ay proposition

def naa réunion y avait beaucoup de personnes bëri nay nit mais li gis nag ñëpp koy remercier ñëpp boot si ginnaawam loolu na ko waaw def eh, d'autres commentaires je suis un fonctionnaire mais je sais que la population xam place mu ngi si ginnaawam gis ñu ngi te ak waaw communauté dégg ne 552 Mmh. D'accord, merci. Euh, c'est question oui question bu am solo communes communes yi yëpp la ñuy informatiser mais ñu war communes yi ñu ñu war a tabaxal ay centre d'état civil yu mucc ayib 32 lañu 32 yi Ngourane ci la bokk mais région Louga Ngourane kese moo ci bokk waxuma la euh, département de mais région Louga Ngourane kese moo ci bokk dans la région de Louga euh, moom beneen bi mooy fàtte naa benn question. waaw wala moom ñun. déjà parce que c'est un programme on est contraint par le temps Le temps temps moo ñu tënk ñu doon xaar mooy ñu am délibération def nañ délibération ñom vraiment alhamdoulillah def nañ délibération léegi ñu ngi dugg ci procédure pour am autorisation de construire xam nañ fi ak fan équipe bi dina fi nous ñu woon leen terrain bi ñu def sen relevé topographique équipe bu ñëwee ligue bi six mois lay dire. inshallah 6 six mois lay dire. quelle ligue bi c'est quelle amé programme bi mo koy tabax mo koy équiper jox ko maire caabi lañ ñu jox maire lu si yëpp six mois lay diire xam naa naa daal bu gën naa sore sori sori sori ah fii ak huit mois normalement war nañ mën a jot sa caabi ba pare am nañ benn volet mooy archivage maanaam dencum kaayit yi am nañ ci volet bu am solo dañu war nañ ci accompagner maire bi parce que am nañu bon euh, contrat avec EBAT école bi formé ñuy defar archivage am nañ ci benn programme war nañ def fii defalaat archivage euh, bu nguuraan

muy ñaanuñ ko muy décès bu amee mu mun ko renseigner bu ñuy fii nit ki mun jot si papier am yooyu yëpp ay projet yoo xam naa programme lu ñuy waxtaanee ak commune yi incha allah dinañu accompagner bu projet parce que gis nañ loolu bu ñu koy gis parce que gis nañ commune dafa dafa farlu liggéey dafa ci farlu moo tax nañ ci accompagner loolu yëpp xam naa ne fii weer incha allah dinañu am waaw cahier de village moom xam naa ni fii ak euh, ay in bëri na une semaine di ngeen jot si seen cahier de village commencé liggéey allah am nañu tamit on va accompagner nga xam ne ñu tuuti leen benn moyen transport pour le moment commune bu nekk commune bu nekk am benn moto nga am mais xam naa ne maire moom xam naa ne ak pexam mën na li jënd beneen moto moom mais commune bu nekk dinañ la jox benn moto moto bi mooy dem ci village yi di jël information yi carnet yi kay di di ko indi ci centre d'état civil ku nekk boo jotee sa volet sa volet un mooy sa acte naissance mu delloo ko jox ko waajur xale bi loolu yëpp ay programme la te. fii ak fan dinaa comme ça mu mu dem jëli motam incha allah waaw auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi yàlla subhaanahu wa ñu ngi julli ci yonent bi alayhi salaam di sant mboolem uh, commune Ngourane di dale ci xalifa bi ak kilifa diine yi ci commune bi yëpp ak euh, imam yi chef de village yi délégué de quartier yi ak euh, mboolem askan wi yëpp euh, di nuyu tamit te di dalal suñu gan ñi di Barka Ba présenté wu na léegi ci taxawaay bu mu taxaw ci suñu projet bi di nekkal nga xam ni mooy saytu lépp luy jëm ci wàllu état civil waaye di ci sant tamit di gërëm directeur de l'état civil nga xam ni moom moo jiite programme bi yabal si ko fi euh, di suñu xarit di suñu wëllëre tamit am yéene bu baax a baax ci programme bi fii nga xam ni moom la ñu nam ma def fii ci nguraan maa ngi tamit di euh, remercier tamit taxawaay bi nga xam ni moom la équipe municipale bi yëpp taxaw ci sama ginnaaw pour lépp loo xam ne mooy yittewu commune bi ñu taxaw ci ak engagement vraiment bu mucc ayib euh, rawati nag état civil bi defe naa ni maa ngi leen doon fàttali bi ñu fi toogee léegi lu dollu daanaka ci ñaari weer jéego yu mag yi ñu def ci wàllu état civil ci ay euh, xale yoo xam ni amaguñu woon kayitu juddu wala ay muskàllaf yoo xam ne mësuñu ko am wala boog euh, koo xam ni ah euh, amoon nga yitte yittewoo carte d'identité ak yu demee noonu daal ñu taxaw ci bopp ba léegi saytu leen yombalal leen ko bu baax tamit ma ciy sant équipe municipale bu baax euh, ci seen njiit euh, adjoint deuxième adjoint bi nga xam ni moom moom laa dénk wàllu état civil defe naa programme bi tamit programme bu am solo la Barka wax nañu ko incha allah ñun day fii ci maire ci commune bi képp koo xam ne dafay ñëw pour jàppale ñu ci yitte askan wi jéem ñoo fexe lu yombalal askan wi seen ay yitte ak seeni soxla ak seen citoyenneté da nga ñu cay fekk te danañ la ci gunge te du ñu ménager benn effort incha allah pour yombalal la ko pour que objectif yi ñu visé tam ñu am ko. wax nañ ko ay suñuy xarite Sénégal yu dekk bitim réew te loolu dañ ci sant bu baax son excellence président de la république Macky Sall. parce que ci ay politiquam mom mo dox lu mel noonu euh, di ci remettre tam ministre des collectivités territoriales donc ay dëkkis yo xamni ñoy xaritu Sénégal ñooñu bëgg gungé ci moderniser suñu état civil comme ni ko waxé 552 communes ci Sénégal ñu bëgg ci def un projet pilote boo xamni 32 communes ñoo ci bénéficié wu euh, suñu commune Ngourane bi bok ci lolu ak sant yalla la bu baax tay remercier donc ñëpp ñi nga xamni ñoom ñoo porté seen choix ci ñun moo tax nag bu soobee yàlla na ngeen jàpp ni Ngourane moom du ménager benn effort pour que ngeen réussite ba pare mu nekk une commune référence boo xam ne lépp lu ngeen bëgg a ci succès bi ngeen am seen projet bu ngeen ko indee Ngourane ñi ñi leen ci jàppale woon ñi ko financé ñi leen ci accompagner ñëpp dinañ ci gën sawar pour élargir ko incha allah ce sera une réussite avec votre accompagnement et notre implication dina nekk réussite bu soobee yàlla Euh, tay réunion pour nous monter comité euh, comité installation comité communal de coordination des acteurs de l'état civil Nous avons ci euh, participation pour état civil bi dox commencé autorités chef de village délégué de quartier

Inshallah, nous tam construire civil bu mucc ayib accompagner ñu ci pour que nous mettre en ordre sur le plan archivage ak yëpp ba paré former ñu nous nit ba bu fi joggé nous ñu ñu won ñun ñukoy état civil nek état civil bu mucc ayib may yégal ni tamit nous délibérer nañ terrain donc travaux commencé réunir nañ l'ensemble des chef de village pour waxtaan ci ak ñoom ñëpp rafetlu ko réunir nañ tamit conseil communal bi tous les conseillers waxtaan ci ak ñoom wax leen projet bi ñëpp rafetlu ko gunge ñu pour délibérer terrain bi kon di ci des rek mooy xanaa jéem a jublu ci liggéey bi incha allah loolu daal mooy solos li nga xam ni moo ñu fi dajale woon tey Eh, di sant yéen tamit eh, suñu mbokk eh, presse bi nga xam ne yéen lañuy ñuy accompagner dañu gunge ci kii bi ngeen siiwalal ñu ko tamit ci commune bi ba ñëpp ñu ko waroon dégg dégg ko incha allah xam naa dinañ def ay séance de sensibilisation ci commune bi ci village yi nga xam ne yëpp ñun ñoo ko séq pour gën a leeral lépp loolu moo doon waxtaan wi ñu ci waroon na dolli en attendant. waaw tey tey moom état civil moo ñu fi dajale euh, waaye nag euh, defe naa ni am na benn waxtaan ma waxtaanoon fan yee bi ñu defee conseil municipal bi ba léegi euh, defe naa ni bu ñu jógee ci wàllu état civil bi nga xam ni moo ñu moo ñu dajale tey waxtaanoon nañ ci jéego ñu def ci xëyu askan wi ba xëyu ndaw yi ba wax li ñu ci fonds Euh, autonome d'entretien routier dimbalee woon euh, ci euh, ndimbalal suñu xarit le directeur général du fay wax nañ leen tamit ci ndimbalal suñu xarit directeur de l'emploi du Fall aussi dimbalee ci wàllu jigéen ñi lu jëm ci état civil bi defe naa ni wax nañ leen aussi lépp li nga xam ni def nañ ko fii ci ci ci côté boobu moy euh, muy euh, lu toll ci ñaari témèr ak juróom ñen fukku jugement de naissance extrait de naissance ak carte d'identité lu toll lu jege ñetti témèr def nañ ko fi ci euh, mairie bi ensuite defe naa ni waxon na len fi ni leen forage Mbisis bi tamit paanoon transformateur def nañu ay jéego ak suñuy xarit ak suñuy wëlëre ba fa tabaarakallaa lépp rent devan rentré waat na en l'ordre dans l'ordre wax naa leen aussi euh, ni ñu jàppale tamit directeur d'école yi ci seen cadre évaluation yi éclairage public wax naa leen leen mairie bi taal na village yëpp yi nga xam ne amoon nañu courant di ko fayal seen bopp mairie bi jël na ko en charge te li fay nekkoon ci sikk-sikk ba mënul tàkk tam defar nañ ko léegi fi may wax ak yéen ñaari dëkk ci desoon muy Mbisis ak Xaaji jot naa directeur u commercial nee na lépp yemb na incha allah ci fan yii rek yi yooyu yëpp dañ tàkk su ko defee dëkk yëpp tàkk ci koor gi jàppale nañu euh, askan wi ci sukkaru koor euh, poste de santé bi defe naa ni wax nañ ci euh, lu toll ci juróomi million ak ñett ak juróom benn fukki junni

Euh, jaadu na commune bi am marché hebdomadaire genre luuma yooyu parce que c'est une forte demande sociale euh, ñu ngi yaakaar ni tamit war nañoo fexe ab terrain bu opérationnel euh, am tamit ci côté bi donte am na benn terrain municipal bu opérationnel bu nekk Ngay su ko defee mu nekk ñaar yoo ci commune bi dina jaadu ndax commune bi dafa yaatu 42 villages quand même yooyu daal mooy ci gàttal yi nga xam ne ñu ngi ci jéego. am na yeneen jéego ñuy def nag waaye ñun dañoo manowul di jëm ci làmbaje di bàkku wala di àddu ci loo xam ni amagun ci ay firnde wala amagun ci ay assurance waaw defe naa Pape wax na ma ko tamit defe naa case de santé comme niñ ko diggee woon eh, ñu ngi leen commencé waat defaraat liggéeyaat eh, incha allah pour jéem a fexaat ñu commencé waat seen activités yi nga xam ni lu ëpp fukki at ak daanaka liggéeyatuñu woon Euh, médecin chef tamit jot nañ ci ay kàddoog moom dinañu accompagner pour ñu recycler waat personnel bi nga xam ne ñoo ci nekkoon te loolu déeru fukki at liggéeyatuñu woon ci loolu waaw loolu tam lu jara euh, signaler la